lii ak yeete la saa su ma nettalee teg ca wir na lool mooy lu doomi sëriñ bi walla ku ko fi fekk wax walla mu bind ko saa su ma bindee wër wér na kese mooy lu ma dégg ci mag mu jële ci ku fekke ci téere bi saa su ma bindee siiw na mooy loo xam ni ka ko wax jëlewul ci ku fekke waaye day sàmm diineem saa su ma bindee wër na mooy lu wër ci barab yu bari ne koy nettali mën nañoo wér mën nañoo mel nu ne saa su ma bindee loolu mooy gàttal gi dagg naa ci waxi kudul sëriñ bi dara wala mu am xeeti nettalin yu bari ma jël ba ca gën a gàtt wallahu taala alam sëriñ tuubaa xaadalahu allahu maxtaarlahu nee na jëfi njekk yi dañuy feg yu bari ci ay ñaawteef ku dul xëccoo dañ koy xëccal kuy xëccoo ñu bàyyi koog boppam ngeen giiw mooy bàyyi mbir yi ci loxob ki moom mbir yi ak mbindeef yi wér na lool